tey nee Sénégal justice bi dafa tëddee ndey di seex est-ce que tay suñu leen bayé ñaar ñele du yoon ñu gënné leen ci kaso bu ñu nek? waaw mais amna lo xamni ni temps. Sénégal ñaar affaire ku ko fi am. do nelaw Moy lan Moy nga am rendez-vous tribunal justice. Hmm. wala nga am rendez-vous police. généralement pour un peu. ñu denc la mais. amna ben benn côté man bi affaire bi njëkkee gën ci. Cliff ak euh, l'autre Simon euh, Simon. d'ailleurs def naa benn tuuti sax Sénégal. dama ne woon li ñu leen taxal moom dëgg dañ leen kale mais bi ma toogee nag man. mu ñuy wax la preuve moom ni koy wax sax l'aveu est la mair des preuves. ni ñu koy en terme juridique ñu teg vidéo. génne la kii naan boo solee ay casquette boo sole ay Timberland. def nii kële naan non ñu lay jox nga noo non xanaa 6 wala nangam. wax dëgg yàlla sama xel tey na. dama leen di ñaanal nag. dama leen di ñaanal. parce que vu le combat bi ñu mënee tambour battant. dal ci carrément le pouvoir de Wade bi bëggoon indi troisième yooyu yëpp. wax dëgg yàlla que malgré nit rek lañ parce que nit ñi nag aussi àdduna weeru koor la bëccëgu koor la tant que jant bi sowul juubu weesuwul te yàlla moom mooy bind nit moo ñaale ak yéen defa yi que nañ leen jugé mais aussi même bu fekkee ni daan nañ leen ñu may leen aussi quand même benn grâce parce que nag liggéey nañ fi ko jar mais li nga gis li nga gis ci kilifa ak Simon boobu hmm. moom la PV yi génnee ci ñaari député yooyu hmm. a 31 certificat de faux mariage. moy 31 passeport de photocopie passeport diplomatique ay député ci ko xamanteni mo done escroqué. Hmm. lan qui vous a raw flagrant délit té ci loxo ci loxo police. motax su fekkone joxe une leçon exemple exemplaire. Hmm. gi nga say député doon doon par là. tey wax. parce que le flagrant délit comme ni ko El Hadj Diouf seetaan nga gis naa ko. seetaan nga ko. waaw. dafa am benn kàddu bu mu wax mooy bu mu traité la gendarmerie de corrompu. oui ñu gis Guy Marius Sagna bind ci page Facebook am la gendarmerie ne nous

parce que tey justice bi. est-ce que Guy Marius Sagna xolam jeexuloon koy bind moom it. waaw moo tax ma justice bi armée bi gendarmerie police bi bu ñu fexee ba fragiliser leen Sénégal yàq na ba faaw ëllëg nag ku am problème ci kan nga jëm doo xam kon ci kan ngay dal raison pour laquelle je pense que ñoom ñaar ñëpp dañoo juum waaye état bi aussi na fexe ba su tëjee kii ndax lii la def warul bàyyi fële kumba am ndey kumba amul moo yàq ay dëkk te li ma gis Sénégal ñu koy kàmbalee doxee nii su continuer le pouvoir là dina fi def ben leg bu bon a bon te ëllëg pour ñu wala dëkk bi teg ko ci ay ray kenn du ko mën def parce que les sénégalais lu ñu xam moy justice équité transparence lépp di leer mais depuis un certain nombre de temps am na ay violation des droits permanents ñu diko gis te lolu njiitu réew mu bëgg ëllëg nga bàyyi fooy wu rafet ku bëgg ëllëg bàyyi fi un état bàyyi fi une société ne ko fi Senghor di nga éviter créer une justice à deux vitesses. en tant que politicien est-ce que gëm nga indépendance de la justice fii du Sénégal. boo may man gëm naa mais xam nga lu tax li tax ma gëm ko que y a de ces magistrats. Il y a des violations de mënoo gëm ba pare. mais y a de ces magistrats tellement honnêtes. non non tellement rigoureux non non non je may déformer ma question. Mhm. est-ce que gëm nga indépendance ou justice au Sénégal oui ou non. man je dis gëm na ni indépendance justice Sénégal. donc waro won wax légui am na violation ci walu yoon. non xam nga violation bi. fu violation am gëm justice. am na xam nga xam nga temps du ko waral. <laughs> yoon mën na am yoon mën na am. mais ci bir yoon politique? wala waxu politicien yi. non non moo Sénégal do avancer mais non yoon mën na am mais ci bir yoon bi. Hmm. du ñak xam nga liñ wax rek. du ñak mo am ay mécanisme yo xamé ni ñun sétlu nañ ni lii dëgërul day yaq té buñ ko defaree mën nañ ko changer c'est la raison pour laquelle je dis que am na indépendance mais am na lu ñu war a améliorer am na lu ñu war a indi ba tey ni ñu ko tuddee les magistrats du siège ñooñu tey inamovible ñu créé ko ba ñu tuddee les magistrats debout ñu def leen inamovible bu boobaa cool yëpp jeex président cesse d'être le président du conseil supérieur de la magistrature seen pairs yi les magistrats entre pairs ñu élire seen biir dans coow yeeg caaxaan yox yëpp duut fi am yëguloo fekke woo ñu fent wax yu ñaaw am ba ba